moy Nabou Leye moom dañ ko don tuumaal ci mbir mi ne daf ci lalé waw dama ci gis. Hmm. lo xam def jëf mbokk internet vox space ñu leen di jajeful bu baaxa baax top gi ñu top way rawatina and bi ngeen and ñun. jëm ji nak kenn du ko présenter ci chaîne bi way rawatina ci TikTok yi rawatina ci plateforme yi nga xamantene mom moy internet bi. jëm ji yi la wax Serigne Cheikh Abdou borom khalima gi muy jambar ci walum la sarar sa suné muy genn def ay révélation te révélation yu mu ci genn def bu yagul touti Sénégal dañ ci da teg bët tey nañu fas Cheikh mom waxtan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 Mm-hmm. te di leen ñaanal jàmm di ñaan suñu kaddu yàlla na leen fekk si jàmm ak salaam. Mm-hmm. macha allah sëriñ ma ñëwal fii sa kër Touba nga ne ma li gis dalul sama xel waaye liy roor si nag bala jëm waaye nag wax dëgg fayal bu fa duggee dina doy waar. ne ma ñëwal ndax li nga xamante ne nag wax dëgg fayal jamono ji ñu ngi koy nuur nuuree yaakaar naa bu sottee ñu bari dañ ci daal ruus ginnaaw loolu ngeen ma sëriñ bi man la na am ngeen ma wax dëgg fa diw ma gis bu jugul ci bopam legui legui kenn dootu ko déggaat sëriñ bi dañ koy dàmbe ci actualité Nabou Leye ki nga xamantene jamono ji ma nga ci nangu siin ba waaye dafa mel dafa am lo ci jek lu bes lolou mu demé non waaw mohammed mhm. xam nga yalla suñ borom bi subhanahu wa taala dafa meuna maye mhm. ta daf ñoo may ta lim ñu may mhm. xébu ñuko ndax suñ borom daf ñoo may seetuk rawhani gu wër go xamanteni ni réew mi di réewum Sénégal suñ borom dimbal nañu ba wër wuñ ci mën di dugg rek suñ borom danañu ci xamal lu bëri. Mhm. ba taxna mbirum nabu lay mom nga may laaj. waaw dama cey gis lu hmm ki nga xamne mom moy nabu lay mom tañ ko don tuumaal ci mbir mi ne daf ci laalé waaw dama cey gis. hmm lo xamanteni surprise la. surprise. waaw ndax dama ko mujjé seet mbir mi. waaw dama gis ne buñ buñ ragalut hmm buñ togué tuuti man nga gis euh, man nga dégg nouvelle bu la bête te mën naa nekk nouvelle boo xamante ni du bokk ak li nit ñi foogoon. allahu ndax ñii ñu ngi naan dinañ ko tëj. Mm-hmm. ñii ñu ngi naan duñ ko tëj. Mm-hmm. waaye gis naa ay kilifa yu koy jàppale ci mbir mi ngir ñu bàyyi ko. moom na bu waaw gis naa ay kilifa yoo xamante ni ñu ngi koy jàppale naan deful dara. Mm-hmm. dañ koo war a bàyyi. te ñu ngi ciy am yaakaar daal. ñu ngi ciy am yaakaar. waaw. sëriñ bi kon jàpp nga ne mbiru Nabou bi surprise mën na am à waaw gis nañ ne. am na ñu ci taxaw daal ngir mu nekk ci tànk génn. mu nekk ci tànk génn. li ma ci gën yaakaar ci mbir mi te gën koo gis ci seet gi mooy. muy lan policiers dañ koo bëgg a protéger rek bañ mbokk yi mbokk ñee daal di koy daal di koy daal di koy daal koy gaañ wala ñu kii ko ndax yenn menaces yu mel noonu yu muy jot. Mhm. Mhm. kon jàpp nga ni nekk nga fa nekk sa xalaat protéger la waaye sëriñ bi loolu foo ko gisee ak noo koy gisee. waaw loolu seetu rawaxaan yàlla seet gi moom moo ñuy wax rek. ndax mhm. seet gi saa su yàlla dogalee ñu xool ko. waaw lañ ca gis rek dafay nekk loo xamante ni ñaare. Mhm. luñ ca wax nit ki du deñ mhm. moo tax mbir moomu noonu. mën nañ ciy déggaat beneen surprise à tout moment. mën nañ ci déggaat beneen surprise. waaw waaye sëriñ bi ginnaaw loolu nga ne ma jàkkatu dugub yi na moytu kii loolu nag bëgguma cee jaar waaye yow xam nga ki mu doon sëriñ mi lan moo tax nga wax ma loolu. waaw du ma tudd turam. ndax euh, Sénégal dafa jaxasoo léegi. dëgg la. te ñun li ñu toog di xam ci suñu roq yi. Mhm. bëriwaa na ku dox ba tànkam weex te xamu ko. dëgg la. kon nag loolu dañ koy sante yàlla. Mhm. te xam naa tamit après dinaa may secret bu am solo ci biir émission bi incha allah rabbi. incha allah waaye mayuma ko jaaykatu diw boobu. Mhm. jaaykatu diw bi doon xuloo ak benn journaliste la xaw ma. waaw. journaliste bi mu ngi ci kawam. ah. billaahi lazi maa la wax lii. jàkkatu diw bi. te jóge na ndakaaru paas na. Mhm. dem na ci àll bi. Mhm. moom jàkkatu diw moom jàkkatu diw bi ci àll bi wala wala wala kan sëñ bi. kam doon jëflanteel ak kam doon sànnanteel kàddu. waaw. kaamir alxuraan laa téye. kooku dem na ci àll bi. lam fa doon def ji nag ak lam nekkee ci kawam ak ak yooyu moom duma ko leeral waaye bu soobee yàlla suñu boroom moom. Mhm. du yàgg dara. du yàgg dara. Mhm. di nga ci gis lu la bett lool. masalla ayca mu ngi noonu sëriñ bi dañuy naan ñëw nag ci li nga xamante ne moom mooy wàllub ñaan donte nag ñëpp moom la xamee ngeen doog sëriñ Saliou nekkoon foofa ci Xelkom sëriñ Saliou yaral la boppam waaye sëriñ dañ koy daal doore li nga xamante ne moom mooy seet ngeen ma sama seet ku ma nga yaakaar ne damaa dëkk ak yow sëriñ bi ci wàllum seet. li may gën a sante suñu borom mooy. Mhm. li ma yàlla def mbindeef boo xamante ni. Mhm. wàllum gis-gis bu sori laa am ci xam-xam. set nak bëri le naa ci ay façon ndax set gi ñu wax setu xiraa xiraatul kahfi mhm. suñ borom dimbal na ma ci dimbal na ci waaw mhm. set gi nga xamanteni mom moy setu ramli mhm. suñ borom dimbal na ma ci set gi nga xamanteni mom moy setu seetuk euh, suuf di euh suñ borom dimbal na ci dimbal na ma ci amna tamit geneen set go xamanteni setu xortu gerte la ah? suñ borom dimbal na ma ci Mhm. seetuk ndox suñu borom dimbali na ma ci mhm. amna na baat bu wax la yastaxlifannahum suñu borom dimbali na ma ci set go xamanteni suma ci defé lama ci def ba ngegnaayoo ko mhm. lu ma bëgg xam dana ko xam suñu borom dimbalé na ma euh, ci bop tan secret bo xamanteni luma bëgg xam suma ko defé sunguf dal di koy xam suma xeye ba raxas ko ci sama bop luma bëgg xam rek suñu borom dana ma ko xamal motax wax ne kurus nak. mom lay jëfëndiko ci walu set ndax rawaxaan me andal mom lañ bëgg ma di ko kurus motax tax képp ku ci kurus waaw suma ne di nga am ay jafe-jafe. Mhm. waajal te xam ne bu àdduna bi desoon ñaari fan pour mu tukki da nga gis sa jafe-jafe yooyu. di nga gis jafe-jafe. Mhm. bu fekkonte ni tey jii nii da ñëw ma seetal la. waaw ne la di nga tuxu fa nga nekk. waaw waajal da nga range say bagaas te xam ne lu mu yàgg-yàgg da nga tuxu. di tux bu fekkente ni da ngay lijjante ay kayit. waaw nga tëjaa jot. Mhm. ma seetal la ne danga nga ci jot. dalal la sam xel te xam ne la ma la wax bu soobee yàlla dara du ci dara du ci soppiku. dara du ci nak mhm. loolu nag bàkkoowuñ ko. Mhm. waaye bépp sëriñ bu ko bëgg. Mhm. mbaa képp koo xamante ni bëgg nga ku la jàngal seetu rawxaan ya gu wér. bu soobee yàlla boo jokkoo man da nga am rawxaan bu wér bu lay informé bu soobee yàlla. bu lay informé waaye sëriñ ma gis fay sungu fi doy waar nga ma sungu ko jox ku ne. bu bu xelam daal dal sëriñ bi sungu fii sungu fu mu doon. sungu fii li ma ciy gën a borom mooy. dafa am boo xamante ni di di di li di yaram bu diis. Mhm. bir boo xam ne ngelaw fay solo. Mhm. tank yo xamanteni da fay faral di metti di diis ak yooyu noonu. Mhm. ta do xam ba xam rab la wala seytaane la wala liggéey la. waaw sa bob bi di diis. ngay teud di bëgg juk do doo juk jug. ngay dox di sonno a sonn. kooku dama la koy wan ni direct nga gis ko. mo hmm? ngi ni sama avis mo ci nek Senegal, adu Sénégal aduna bi yépp boko wéré man dong nga koy gis mako ko joxé deug la nayet bu nek ben yon la ko juroom ñaari dekk ci la sungu fi juggé Mhm. juroom ñaari garab yu bokul la mhm. euh, juroom ñaari aljuma lañ ko wut mhm. sungu si kep ko yalla dogal ma jox la nga diko sango waaw ku la liggey liggey ba dana kep wat ci kawam wax nga ma si ba kep ko yalla dogal ma jox la sungu si nga di ci sango waaw sam non bu ngeen dajewon si téeméeri nit dula la day ragal day nëbbatu day hmm sungu si ku yalla dogal ma jox la nga diko sango waaw serigne buñ la mën di yobbu ah. delawat sa avance han ah? lolu ma la ko mëna watal mom sungu si. mom sungu si wa ci lol lay dox. sëñ bi ndox bu ci bële bi. bi ci li mom moom bi doyna war trop ndox mi ni mu bulaa nii lan lan la wara don bitel bi dama koy yëngal sax ba nga galaj gi waw bu fi at du soppi ko comme ni mu mel lay mel gis nga ni mi fouré deug la mag ñi dañ ne galaj deug bu baxé saafara deug bu baxé boko ko dafa wara four mhm. ko ubi won fi bitel bi mën tour tuur. tour waw bitel bi nak képp ko da ngay xëccio mbir mu deugar waw nga yóotu mbir mu dëgër. waaw nga nekk ci place di fa liggéey kenn mënu laa respecté kenn mënu teg fu baax ngay fayee ko xaalis bu bëri. waaw fexeel nga am kii. Hmm? moom moo nee naa man li may joxe. Hmm. ku suñ borom nar te dimbali doo si jot. dëgg la moo nee naa la man li may joxe. waaw su ma ko doon maye su fekkee amoo ñaan waajur doo ci am. dëgg la kon képp ku yàlla dogal nga dox ba exil sama bopp ba exil sa bopp fii ci man mhm. mbaa nga jëflante ak man ba yàlla dogal ma jël samay garab yëkkati ko yóbbante la ko mbaa ma jox la ko mhm. na nga sant yàlla bu baax te xam ne suñu borom nar na laa dimbali bëri na ay ministres yoo xamante ni ñu ngi koy jël si man fii téeméeri junni moom butéel bu ndaw bi moom butéel bu ndaw bi mhm. ñu ngi koy jël si fii ci man si téeméeri junni ci téeméeri junni képp na fexé jox ko yow mm-hmm. ma sha Allah acca sëriñ bi waa pot bu wex bi tamit wax deug fa la mënul ñak comme ko tay mom xam-xam lañuy waxtane ak li nga xamanteni mom moy mooy wàlluk ñaan mm-hmm. mënul ñak ñu daal koy waxtane bala ñuy ñew ci li nga xamanteni mom moy secret bi nga war a maye sëriñ mm-hmm. waaw ki mom ñi nga xamne mbiri ngora daf leen sonal ngora ngora manam ñi nga xamne dañuy nekk ak seen soxla di gaaw yegg ak ñi nga xamne dañuy nekk ak seen soxna waye seen soxna duñ yek seen bop bu baax nañ fexé ñu jëfëndiko ki seen borom kër yi nañ jëfëndiko ki nañ jëfandikoo kii juróom ñi euh, euh, fukki fan la ak juróom. traitement bi juróom fukki fan ak juróom la waaw. Mm-hmm. macha allah bii baax na mu mudu yi koy jël ñu ngi sant ak gërëm. Mm-hmm. bi fees na dell ak audio. Mm-hmm. ngir budul woon ak yow sama soxna dana ma bàyyi. kon nag nañ fexe ñu am bii. nañ fexe am boobu waaye Mouhamed du ñu yem foofu. fu ñuy acca fi ñu jëm sëñ bi. dafa am loo xam ne nit ñi dañ koo bëgg loolu. muy lan te mënuñu koo am. lu mu doon muy kii bayra. bayra dëgg la. Mouhamed nit war ngaa am bayra ba foo tëllee. ñu sawar a wax say wax. Mohamed nin war nga am bayra ba fo mhm. ñu sawar di la xol deug la motax pot bi damay wax ne ku yalla dimbali nga am ko di sango fukki fan ak ben waaw warabul kahbati bati fuñu deg nit ci lu bax dañ la fa deg ah te pot bi ken duko am ci sa dund waaw ñu lay yeeram mom mi duko am di abbu Ken duko am am di yelwan pot bi mhm. képp ku ko am kenn mënul téré ba do nek million millionnaire ci sa dund mom pot bu ndaw bi kenn duko am te suñu borom du la dimbali nga téye ay million ci lu yagul dara <clears throat> waaw kon pot bi waaw ku yàlla nar a dimbali moo jot mm-hmm. ak ku sonday gërëm mm-hmm. say mm-hmm. ñu ngi leen di ñu ngi leen wax ne euh, pot bi mu ngi disponible fi mu ne nii moom macha allah ayca jërëjëf Serigne Cheikh Abdou lañ koy daal wax bu doon koo xamante ne Serigne Saliou la yeroo foofee ci Serigne Saliou jàngee xelkom jàng alxuraan daal di gëstu alxuraan waaye nag balaa ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy secret bi nga xamante ne moom mooy war a maye mooy sëñ bi wàllub kaaraange ñu bari ci ndaw ñi amuñu kaaraange sëñ bi ci wàllub kaaraange laa bëggoon nga ñëwal ma ci waaw kaaraange nag dama ciy wax la ci waxoon rek ndaxte fi mu ne nii may waxe yow nii mm-hmm. dama gis ay jaxasoo yu metti yoo xamante ni dafa nar a am fii ci soow bi. ah waaye du réewum Sénégal. waaye du réewum Sénégal. déedéet. sëñ bi kon yow moom da génn ba réew mi. sama gis-gis dafa romb sax. Ah? frontière Sénégal. dama ne damaa gis xew-xew boo xam ne ci réewu naar yii nekk ci soow bi fa la nar a xew. fa la nar a xew. Mm-hmm. muy réew mi nga xam ne dafa jëlloog ñun muy réewum Murtani. ah te jaxasoo jaxasoo yooyu damay gis ay ndaw Sénégal yoo xamante ni. Mhm. nar nañ cee am ay coono. nar nañ cee am ay ay coono waaw. moo tax kon nit. su fekkente ni da nga di xale. Mhm. di sën. Mhm. bëggal liggéey teral sa ay waajur teral say mbokk. da war a fexe ba ñagu nga xam ne lu ñëw ci yow mën a toog. dëgg la ku jug pour yabal ay nit pour yàqal la ñooñu duñu egsi. mbaa bañ egseel liñ fay jëlee du leen neex. dëgg la mbaa képp koo xamante ni dafa jug pour yóbbu sa tur ci sëriñ. mbaa mu bëgg laa sacrifice. mbaa mu bëgg laa def yu mel. Mm-hmm. kon la mi la mi jëm ci yow. Mm-hmm. dara du ci ant dara du ci ndomba gi ma ciy joxe. waaw dinaa la ko won léegi. Mm-hmm. mooy ndomba gi nga xamante ni ci xarum benn melo laa koy liggéeye moom ndomba gi. ndomba gi. képp ku yàlla dogal ndomba gi li ma koy joxe dafa seer nag. ah daa seer. waaw dafa seer. joxe ndomba gi. gi li ma koy joxe du ma ko mën a leeral nag waaye ku yàlla dogal nga woo ma. waaw bu soobee yàlla suñu borom da nga ko am. moom ku yàlla nammee nga war koo am. waaye ndomba googu képp ku ma ko jox. waaw ku mënul jël gileem jaarale ko ci bën bënu puso. ah bul ko tiit bul ko ragal te xam ne mënu ci sa jëmm jooju dara. moom ndomb gi. Mhm. kon maa ngi soññu ndaw ñi. Mhm. ñu wuti jiwaat kaaraange. Mhm. te defarwaat baax a ci seen wàllu toogaay. macha allah. ayca jërëjëf la ñu jëgloon si ma naan kaaraange sax a la euh, sëriñ bi njëriñ doon. waaw bii nag. dama koy may ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ne. dañoo am mbokk mu dem tëw a ñëw mhm. mbaa seen soxna dem tëw a ñëw mhm. mbaa seen jëkkër dem tëw a ñëw mhm. mbaa sa doom dem tëw a ñëw nga bëgg mu dellu siwaat ci sa ay loxo xawaatim bii ma lay jox nii moom ngay bind soo ko bindee comme nii ma ko bindee boo koy bind bu mu am bismillaahi rahmaani rahim na am kun rek na am kun rek waaw boo paree nga daal di bind xawaatim bi comme nii ma ko bindee soo paree nga dugal turu ki nga xam ne moo dem Mm-hmm. ci digg bi fii mm-hmm. soo paree nga toog a soog a tëj xaatim bi xaatim bi boo koy tëj bul julli ci yonente bi na nga ko bind na nga ko tëjee fa yàkkun rek mm-hmm. soo paree nga bind aaya alxuraan bii moom nga koy collecté nii mu wër ko mu naa mu nekk innaa hadaynaahu sabilan moo nekk ay alxuraan boobu moom nga koy collecté soo ko collecté ba ba ñeenti koñ yëpp kii rek bu ko oh. nga daal di jël xawaatim bi lem ko ba mu kii nga teg ko ci nga dugal ko ci potum meew mhm. daal di koy teg ci kawub gaz mbaa nga teg ko ci kawub fourne mhm. bu ko defee ngay wérdu aay alxuraan bii mhm. mu nekk inaa adaynaahu sabilan nga wérdu ko soo paree nga daal di jël pot baag kër yaa ki yëpp nga gas ko suul ko ci kër ga nga xam ne fa la ndaw si bàyyi ko woon bu la neexee mën nga koo suul sa buntu néegam incha allahu rabbi macha allah kooku du yàgg dara mu dellu si waat bu macha allah xam naa ne dana métti sëriñ su bëri ndax secret bi secret bi efficace la dëgg la te secret bi tamit da di boo xamante ni pour nga liggéeyal ko nit normalement waroon nga cee laaj weexalu juróom fukki junni dëgg la mu yëkkati ko jox la macha allah mm-hmm. ayca jërëjëf sëñ Cheikh Abdou kontaan nañu wax dëgg fi yàlla teew guñ fi daal di teewoon mm-hmm. euh, lan ngay daal di tàggatoo ak lan ngay tàggatoo nga xam te ne mooy askan wi waaw li may tàggatoo mooy lenn Mouhamed dama lay wax ne réew mi ñu nekk nii. waaw amul benn sëriñ bu fiy nooyee te dàq liggéey nopp. moom nopp. nopp li ma ci mën a liggéey ak li ma ci mën a garantir nit ki. kenn mënu ko koo defal. ci nopp ci nopp. man nopp du ma ci diddital. nopp boo ñëwee xam-xam bu ñuul am na fi xam-xam bu weex am na fi. ci nopp am na ci boo xam ne ci pisson laa koy liggéey am na ci boo xam ne ci gagub ginaar laa koy def suul ko fiy tooy. Hmm. balaa 24 heures ya mat balaa ginaara sabat bu soobee yàlla suñu borom sa jëkkër dana la woo téléphone. dana déplacé wu fekk si la bu fekkee soriwu leen. bu fekkente nii nag da ngaa nekk ak nit mu trompé la waaw wax la daf lay takk dem ba ci yàgg mu jékki-jékki du moy la déggatoo ko gisatoo ko waaw boo ko noobee rawxaan yi ñoo koy woj mu ñëwaat ci lu gaaw am na ci boo xamante ni ci xolu poisson laa koy liggéey takk ko ci kaw garab mu soddamtalu mhm. boobu 24 heures la xam-xam la gaaw na mhm. boobu damay tur deret mhm. li ma koy liggéeyee nag seer na waaye sa soxla na la gënal xaalis bi nga xam ne day dem yoonam dëgg dañuy ñaan rek yàlla réew mi di réewum Sénégal jàmm sax fii mhm. yàlla jubóole nit ñëpp mhm. te boole xol yi mu tàppe mhm. yàlla dogal ñu mën a muñalante yàlla defal ñu gudd fan ak wërsëg ak teraanga àdduna ak talaa teraanga alaaxira yàlla may ñëpp kaaraange ak wér sama jëmm ji nag yombul jotee naqari na maa jot téléphone te ku yàlla naru dogal sa aajo faju boo ma jotee duñ déggoo ci wax ku yàlla dogal sa aajo naruta faju boo ma seetsee tamit doo ma gis ku yàlla dogal sa aajo narata faju kon sama wax ji boo ko déggee sax doo ko gëm ba ci am euh, ba say saytaane mooy jiixi jaaxa sam xel dëgg la doo am yaakaar ci man sax bay jëflante ak man dëgg la kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm mhm. di wax allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin wa sallim mhm. jërëjëf jërëjëf mbokk internet yi di leen jox nag dig daje beneen incha allah ak yeneen waxtaan ak Serigne Cheikh Abdou mu doon koo xamante ne jàmbaaro loolu ci wàllum xam-xam jërë ngeen jëf merci beaucoup